tay opposition bi fi ci Pikine gis ngeen ne nek nañu ben nek ben pour xeex injustice ndax maa ngi dégg li xew Pikine Nord maa ngi dégg li xew Pikine Est ca certainement am na ci yeneen communes yu mu xew xëy na dañ ko évoqué wul tey ci conférence de presse bi muy ay irrégularités yoo xam ne yi ça elles ont été savamment préparées par Benno Bokk Yaakaar moñu ñu indil tey situation bi nekkoon japp na né département wu Pikine lay wax commune fi nek yépp opposition bi ñoo koy gagné. xex bi dafa wara nek un combat politique sur le terrain dafa wara nek un combat médiatique ngeen dem ci radio yi ak télé yi ci grand place yi ak ci marché yi aussi wax ak nit ñi gannaaw ba nga xamee ne introduire nañu recours au niveau de la cour d'appel mu nekk un combat judiciaire ngeen xam ne ci seen taxawaay lay des pour victoire bi ñu delloo ko seen loxo heureusement ñi ma dégg ñu wax fi ñëpp di seen ay responsable yoo xam ne ku ci ne taxaw nañ li ma war a taxawee jël nañu engagement avec la population de Pikine pour que li nga xam ne lii moom mooy li ñu moom muy suffrage population yi nga xam ne dañ ko voté pour le maire Cheikh Dieng voté ko à dans d'autres communes pour ñi nga xam ne ñoom la fi opposition bi sampo santoon rawatina yaakaar naa def nañu recours Pikine non que ñu am gain de cause